3S Pro. yëkkati na loxo ba Sambala ba waaw waaw Boy Faye mënutul dem Boy Faye mënutul dem Sambala am na ndam Boy Faye dafa debu waate Boy Faye dafa debu waate mënutul dem jibi booy fay dafa debuwaate nuyu naa la waaw loo bëgg jibi alaaji nuyu naa lu ngeen bëgg alaaji nuyu naa nuyu dinañ leen lamb léegi la ñuy waxtaanee waaw loo bëgg lamb léegi gis nga ko ah mën a réer la bu ñu egg foofu non booy fay tey du ma sëb lan moo tax bi mu tuusee la ñàkk lamb lan la ñàkk lamb ji lan moo tax nga ci lamb la mais tey ñu gis mu ñëw bëre bi passer passer lamb ji tuus la daanoo ki tuus la daanoo ki tuus ma la daanoo mais Zambala bokk ci lamb mais sa negu ñàkk combat am lii moo ko waral soxor na mën na bëri. daa bokk ci làmb li ñu soxla ci mbër catégorie bu mag dañoo soxla mbër bu mel ni Zambala ndax làmb ci kaw daa wéet day sport bu mel làmb soxla na ko ndax day yokku làmb li ñuy soxla ci mbër yëpp ci Zambala day mobiliser li ñu soxla ci làmb mu koy def gudd na rëy na te day xeex ñeme na te la soxla ci mbër ah fu ko fu ko ay bëgg nag. Jordan. Jordan de mën na bëri ñu. moog Jordan da bokk Pikine loolu ba jaaxal. moo eh, nga dëgg de. moog Jordan da bokk Pikine waaye tey jii ku ni moom ndigal combat la. ndigal man bu géej waay. waaw ndigam su ko belde la daan. waaw waaw de. ñoom ñaar combat bu jaar yoon la. bu métti bu métti. super lourd la ñu. si ndigal. nga ne. est-ce que du doon daan si ndigal tamit. non non non non lamb ndaanaan lay daan wala nga daan daanaan te ku ci lamb il faut nga ji lamb kenn mënu la si dindi macha allah baal la koy góoñaa gis nga seen forme yi. waaye dama ne baal gis nga Balla Gaye non non Balla Gaye léegi gisoo billaahi ba léegi gisuguma kenn ay eh, eh, vidéo ñu ngi daw si kii réseau vidéo doyu kenn ci làmb day am loo xam ne nii corpulence boo xam ne ci mbër da nga koy xool ci moom li ma ci wóor ba mën la ko cee wax rek booy ñaa ba làmb ji commencé ba léegi la ma gisoon ci moom ba léegi tàggut ak forme ba léegi forme si bon maa ngi ci moom waaye ba Gaye 2 ci làmb la kenn mënta rat loolu rek sans problème daa ñu bëri de loolu waxatuñu ko le premier janvier heure bii ci arène nationale bii a ah, loxo dina dar gémmiñ de. looy maa la dee loolu. delloo ziar. naka mu. yaa bien. maa ngi nii. ñaari frère ñoo doon bëri. sama ñaari frère sama ñaari rak. waaw mbëru Mbapat. ñoo gisee combat bi. gañ que parce que ñoom ñaar moom yàgg nañ di daje si Mbapat. waaw que le meilleur rek. mais man moom fee laa kii quoi. fee laa dëkk. mbaaw laa dëkk. bu ma ñëwee Dakar ba presque 17 ans. waaw. sama rak la sama lépp la. mais tey booy nu mu bëree exemple non lamb rek lamb moom garaawul. jiwul si bëri bi rek ñoom ñaar xamante nañ waaw da ngay xoolaat lamb bu amee nga xool lamb rek ñoom ñaar. mais jàppoon nga lamb fii la doon jeex jàppoon nga. ah fii bëre rek xamoon naa ko parce que ñoom ñaar ñoom ñaar yëpp ay bërekat lañ ay champion lañ waaw mais zam nag mooy sama mbër. waaw mu jëm léegi. ci kanam affaire bi yëpp dañ na. bëre rek non fu mu nege nii. non baal ba ñu làmb rek day bëre de. mais dama dégg jël léegi Fadam mu ni moog ndigal combat. waa acca ku ñëw rek ñu jël. ndigal temps dafa nekk ci làmb. loolu garaawul kii moom booy bi xam naa ko maa ko yar ñoom ñëpp maa leen yar ñoom luy coor numéro de ñoom Zambala ñoom Zene maa leen dugal ci làmb bu may ñëw mbaawu presque ay tànk lañ ñu ma may contact may dem ci làmb di jël kon ñoom lu ñu am rek man maa ko moom. na solo temps noo gisee ak avancement bi nga xamante ne làmb mi ngi moom avancé na moom bu baax a baax. mbër ñoo amatul rek mais lamb moom avancé na. tumuranke. waaw bu dee bëre simple moom mbër yi moom dañoo tumuranke parce que mbër moom waroo am xarit. waaw voilà ak YouTube bi. ku la daan suba nga ko vocal. ça loolu amul ci lamb. mbër mbër da am fit. am jom am am fulla. sa yaay rek jarul yaay sax yaay bokkul ci mbër. yow kese ak sa papa ak mystique. lamb saytaane la. yow da ngaa mos dem juma nga julli bo nit nit ilimaan bi waare lamb am na ci kii. waaw katolik mos nga ko dégg. lamb seytaane la. te saytaane moo koy def code moo koy def. Libidor ah, maa la ko wax. mos nga dem tabaski ñu waare lamb. mos nga dem kii église. popo ngi ñu waare lamb loolu amul. la saytaane saytaane. waaw nga rey ma ubbee ma rey la loolu mooy lamb man loolu laa ci xam. a ah, man loolu laa xam ci lamb de. ma rey ma bien nga <laughs> waaw Abdou Karim Sall. di sant docteur Diop bu baax a baax a baax. bu ma limee billaahi damay juum combat bi. amul ku si jàppul dëkk bi yëpp. samay morom yii ñii. kenn ku si nekk li mu def si combat bi billaahi wallaahi tallaahi man moo ko billaahi wallaahi wa dañu may jàppale ba damay rus. billaahi wallaahi tallaahi di génn fu ne fu ne fu ne fu ne ngir man. billaahi wallaahi tallaahi billaahi doole yemul Babacar xam nga ma bu baax dama bokk si làmb Babacar ma ak Reug Reug ak Franc ñoo jógandoo même génération même génération Reug Reug rëcc na dem na si ñooñu laa bokk dama ñooñu damaa war a ànd ak ñoom dem damaa war a ànd ak ñoom dem billaahi wallaahi wa tallaahi faw la moo ma yar waaw kooku ma ñemee lutte simple ma ñemee lamb moom la grâce à moom waaw mbalka mag grâce à moom mbalka mag Ablaye Pouy 2 Jëlaani Pouy di ko sant bu baax sama grand boobu ñooñu noonu ñoo ma yar sama mag yëlli Assane Gueye Mor Gueye Thiat ñooñu noonu seen kebaar laa nekkoon billaahi ma nekk lu ndaw di bërin di bërintu ñoom bëri ma yor ñoom ñoo ko def ci man ma ñëw école li li ñaa ñu dolli ma ñooñu ñooñu ñooñu aw ma seen fay. léegi foo jëm sa xel mu ne. Zos. Zos nee na nu mu def boo nee na booy fay nu mu def boo ñaar la may def. na ñëw ñu bëre. waaw. Zos boo ñaar da doon génn saraxu lamb jaarale ko si moom. moom nee na dégg nga li sama grand nag dama koy may dama koy ñaan. waaw moom sas na ma jël waaw. à part sas biir parcelle. da koy ray. garga 2 amul combat maa moom combat jànq la. garga 2 garga 2 waaw. loolu dafa doy waar Aliou Seye numéro 2 ñooñu waaw sama grand sama grand la ñooñu dañ maa war a may sànq bu bëri ñoom ay ndaanaan lañ kenn bëggu leen jël nañ ma may chance ma bëre ak mais man li nga safee xorom man Zambala boo ko gisee mu taxaw da naan Zambala yambar la nooy neex la mais Zambala bi fecc mi nga fecc tey loolu foo ko jàngee dama dégg ba dama dégg man tey li nga fi jaxasat li li li fi def tey man dama yaay dañ maa namoon ma ñëw dajale lépp andi ko andi cosaan andi ambiance andi lépp andi andi lépp lépp laa andi monsieur le maire Abdou Karim Sall docteur Diop maa ngi ñëw Abdou Karim Sall maa ngi ñëw bu baax a baax a baax waaw jaajëf waaw mbaaw